koy gërëm président de la république mi nga xam ne tey moo ñu boole fii nga xam ne euh, son excellence koo xam ne bëgg nañu fonk nañu yëg nañu safoo nañu faale nañu xam na ne ay membre fondateur lañ jërëjëf président de la république su ma paree nag damay gestu sëñ Modou Mbacke Baara Doli mi nga xam ne mag la ci man euh, du sama camarade dama ko mën a jàppe ne sama mag la su ma paree maa ngi ciy teg Assou Ndiaye su ma paree maa ngi ciy teg Mbaye gisuñu ci sa nguur gi suñu bopp mooy ñun amuñu hôpital amuñu assainissement amuñu stade président de la république daf maa tontu ne ma dangaa mel ni ku dëkkul Mbàkke ndax stade Mbàkke ba ña ngi koy inauguré bi ma xëyee bi ma ko filmé ba yónnee leen ko ñoom ñëpp dañoo tiit ndax dañoo yaakaaroon ne stade Mbàkke maa ngi wax ne ah, ñun dañoo amoon lu ñu naqari ñu àndandoo kenn ku ne nekk responsable fa nga nekk ñu àndandoo ne xeex bi kat mbooloo moo ci gën a gaaw kon nañ àndaloo xeex xeex bi waaye tey jii nag toog nañoo président de la république waxtaan ak moom léegi dégg nañ lam la wax lam ñu wax ñu ne dégg na lam lañ ko wax léegi nañu góor góorlu jigéen ñi ak xale yi ak góor ñi yëpp dem wote ji woteel président de la woteel président Macky Sall ci élection yu njëm man mënumaa wax nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant man ñi ma fi andi di leen gërëm heure ma jógee ñu jóg muy suba muy ngoon bàyyiwuma kenn. ñun dafa am lu ñu taxoon a jóg muy résistance pour ñu xeex li nga xam ne moo nekk ci département de Mbacké muy naxe yi ñuy naxe di dem ci président Macky Sall di ko tegal loo xam ne bokkut ak li askan wi di dundee ñun tey loolu moo waraloon suñu jóg ànd di xeex ci nag sunu borom defal nañu ci ndam président Macky Sall reconnaître nañu recevoir ñu toog ñun waxtaan ak ñun laaj ñu jafe-jafe askan wi ak lan moo tax mënut a gagné département bi leeral nañ ko ko kon nag man samay wax du bari sëñ Modou Mbacke maa ngi lay sant bu baax a baax macha allah gagné nga combat bi. gagné nga combat bi Mbacke yal nay sa njëg ndax yaa ñu woon président Macky Sall yàgg nañ ci département bi. xamal mooy coow li bari na wax ji bari na waaye carte électeur mooy importance bi soxlawuñu mbooloo moo xam ne dañuy jëpp jëpp ak di joow 31 juillet dama bégg première heure ñu far Macky Sall fii ci département de Mbacké président Macky Sall kon nag jigéen ñaa ngi noonu te yéen électoral bi am ngeen ci solo yéen jigéen ñi maa ngi leen di bu baax a baax a baax ndam ni jot na pour ñu jox ko président Macky Sall fii ci département de Mbacké maa ngi sant ñëpp di bu mag. muy bis boo xam ne histoire dana ko nettali ndax kenn umpaliwul sama diggante ak président Macky Sall waaye kenn umpaliwul taxawaay bi nga xamam ne taxawoo nañ ko ca Mbàkke yëkkate ay kàddu wax ko am luñ taxawal loolu biñ ko taxawalee jataay bi yàgg na liggéey bi yàgg na lool waaye dafa am moo bu ma fa tegoon moom laay répété waat dama waxoon bientôt loolu laa waxoon léegi nag bientôt ànd jëli ndam li loolu foofu la jëm ca li ma ci bëgg a leeral mooy ñun dafa am lu gëm ci ay principe ñëpp xam na ne Serigne Modou Bara Dolly Mbacké dëkk bii di Touba da cee bokk ñëpp. am cib cër comme ñëpp maamam bokk ci ñi wuuf jumaay Tuubaa maamam seexul xadim di nijaayam di baayam waaye maamam liggéey seexul xadim comme ñëpp kon ci tey lépp luñ fi war a jiite ci dëkk bii rek sëñ Modou Bara Dolly war na koo jiite loolu nag laay wax ne la ma waxoon dem rek la wax fii ci Touba jom naa ne président Macky Sall dana teg lépp ca fam ko war a teg ndax kenn ku nekk xam na la man politique du ay saal politique du ab daayira politique da ngay wàcc jàkkaaru askan wi politique da dugg ci marché yi politique da dugg ci garage yi wax ak askan wi may woo sama mbokk yi fii ñu toll. waxtu la woo xam ne ñëpp danoo war a joxante loxo waxtu la woo xam ne ñëpp danoo war a yaatal kon li may wax nan wàcc dugg ci terrain bi ndax man li may wax bu xeex jotee danaa xeex waaye bu liggéey jotee danaa liggéey man dama mun duggantu moo tax bi may jëg di def yàlla boole maag ay gor yoo xam ne ñu ngi nii taxaw muy ay gor yoo xam ne ñu am gëm-gëm lan muy ay gor yu am pas-pas gaa yi daan jóg di root rootum guddi ci ñoom lu ne proposé na leen ko ne leen bàyyi leen sëñ Modou mu xeex yéen ngeen génn ñoom ñëpp ñu ànd ak man duma leen lim ndax kenn ku ne jaar na fi ak ñeneen ñi ci des waaye ñu bari naan leen sëñ Modou bu lijjanti ko dem ci président fàtte leen kere bi ma jàkkaarloo président damay ko sama signature mooy ñi ma àndal balaa benn signature bi de valable da ak ñoom. mu nangul ma ko ñu bari waxoon ne yaakaar naa ne président waxoon na ko moom laay waxtu waxaat seentu asamaan jërta boo xonte nan yaatal dënn yi yaatal parti bi ca xam ne parti politique bu amee kenn moomu ko du ñaari nit du ñetti nit parti politique dañ ko war a yaatal addition ko addition lañ koy wax pour ñëpp ànd bokk liggéey fii ci tubaa rek laay gis sa collègue camarade parti nekk ci ay aw naqar nga bëgg mu génn parti bi abal la fii rek ci Touba laa ko gisee dama yaakaar ne ci politique da war a gis sa camarade am lu ko jaaxal comme nii ma def nga xam ne dajale ñëpp ànd ak ñoom na leen bu leen génn parti bi na nekk ci parti bi xeex leen war a xeex ba tey ñu toog ak président wax ak moom la bu wax ak ñun ñu tënk ko wàcc ci terrain bi liggéey ci loolu nag guddi ak ba bëccëg ñun ñu ngi ci permanence bi jege ñu fi bala ñu fay jógee deux heures de matin jot ma wax sama mbokk yi ne wàcc ci terrain bi prisident di la république wàccoon naa ñun jox na fi mooy yu mat sëkk wan ñu ko nag def na loo xam ne li tamit kenn du ko weddi muy ñëpp xam ne ne président ku ne mën naa wax waaye kenn du ne liggéeyul ca lan la ñu lan la ñu doy ab président buñ koy fal duñ ko fal ne dafa njool dafa xees dañ koy fal pour mu liggéey waaye comme que mi ngi liggéey réew mi lan la nit ñi bëgg dañ ko doon fal ngir mu liggéey réew mi te kenn ëppale wu ne liggéey nu tubaab bi rawat na tubaab gi ñu bari ñu ngi koy am naqar ci moom ngir ñëpp xam na li muy def tubaab. yaakaar naa une heure di temps ak dix minutes nga dem Dakar autoroute Ila Touba hôpital niveau 3 assainissement ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi koy def ci Touba gi kon ñun buñ goree wala ñu gëm dara wala ñu gëm seen Touba kenn du ko moyal saw xob ci dëkk bi parce que nag seriñ Serigne Mountakha Khadimou Rassoul lim ñuy wax guddi ak bëccëg toujours mi ngi naan ko boole naa la ak sëñ Touba waay waay ñun nan seetlu waat suñu bopp. yaakaar ñu ku dul sëñ Touba Serigne Mountakha bis bu set mu na la ko boole naa la ak sëñ Touba kalaabe naa la ak sëñ Touba li ngay liggéeyal sëñ boo ko gis ñu murid bi buñ ko rey lan lan war a def rawatina ñun waa Touba sëñ Mountakha joxoñ na de xanaa damay jàpp ne képp ko am murid bu sëñ Touba joxoñ nga xam ko Cheikh Saliou Mbacké leen rek la waxoon Ablaye Wade li may ñaan sëñ Touba laa koy ñaan ñi ñëpp dégg gis-gis boobu. kon tey sëñ Mountakha bu yëkkatee kàddu yi nekk Mountakha Mountakha ñëpp mu nekk ko ba tey mu nekk Xaadimu Rasuul ñun ñëpp war nañoo am gëm-gëm boobu ak pas-pas boobu kon maa ngi continuer di wax ne yàlla nañu yàlla jàppale ban mën a am ndam ci élection yi ñu jëm maa ngi koy ñaan ci barke Xaadimul Moustapha tàllal naa loxo ñëpp bay ma kenn parce que loolu képp moo ñu fi mën a jëlee nan wàcc ci terrain bi wax ak nit ñi dugg ci kër yi. dem ci marché yi ngir lan pour war a liggéey président Macky Sall maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu